Sall assassin. Macky Sall dictateur. Macky Sall assassin. Le 25 élection. Macky Sall élection. Macky Sall dictateur. Macky Sall dictateur. Macky Sall dictateur. Je suis un bon gars, Je suis Ambora Gaïa, Kheri Pro, Yamagana Kham. waaw gars yi tey fii la ma gars yi saan ndeysaan Mboro euh, gars yi vraiment bëgguñu li nga xam ni moo am fii ci diwaanu euh, Sénégal. Macky Sall le dictateur. Macky Sall gars yi tey maa ngi fii ci diwaanu Mboro. Euh, vraiment mu doon événement boo xam ne yéeme na. ndaysaan gars yi tey maa Mboro Mboro def nañ une forte délégation gars yi vraiment waaw ne am na élection la ñuy laaj gars yi ndaysaan tey Khary Pro mi ngi diwaanu Mboro macha allah une forte délégation ñoom ne nañ Diomaye rek élection la ñuy laaj ndaysaan macha allah def nañ une forte délégation délégation ba am doole macha allah Mboro Ñaay ragam ragam jëm Mboro lem lem ragam ragam lem ba pare barki Alquran Masha Allah Ndeysaan waa Mboro ngi noonu de gars yi dama bëgg ngeen vidéo bi partager ko macha allah solo tey waa Mboro ngi noonu dana woo Khiri Pro uniquement pour nga ñëw couvrir li nga xamante ne moo di marché bi lu am solo la gars yi dégg nga waa ji sànq nee na tey waa Mboro ñooy talaxlax yi waa Mboro ñooy layam layam yi tey waa Mboro ñooy rakkam rakkam yi macha allah mbokk yi. ndeysaan mbokk yi gis ngeen euh, délégation bi am na solo foofu ci diwaanu Mboro ñoom nee na élection la ñu bëgg ñi ngi réclamer seen ay droit macha allah waa Mboro def nañ une forte délégation délégation bi am na doole toir fakala macha allah nee naa leen tey waa Mboro ñooy layam layam tey waa Mboro ñooy talaxlax tey waa Mboro ñooy rakam rakam yi tey xarit Proda wàcc si mbooro ndeysaan couvrir li nga xamante ne moo de marche bi am na solo gars yi di wax ngeen partager vidéo bi abonné aimé partager bu baax a baax a baax seen seen YouTube Khary Prod l'officiel am na solo bu baax a baax a baax gars yi ñu ngi réclamer seen ay droit ndeysaan li am na solo lii de bu doon man la damay bàyyi <laughs> non lii bu doon man la damay bàyyi ndeysaan lii bu doon man la damay démissionné ndeysaan doomi Sénégal doomi réew mi waaw <laughs> ndeysaan déggal waa ji nee na boo ko sequl ak góor am na fulla am na fayda ndeysaan macha allah waa Mboro ñoom nee na élection la ñu bëgg élection le laaj tuwaar fa kala allah solo amna solo tuwaar fa kala li amna une forte délégation mobilisation bu am doole fi ci diwaanu Mboro wa Mboro neen ñoom élection le bëgg élection lañu bëgg non à la violence élection le bëgg mu doon ben marche bo xamanteni marche bu pacifique le, am la am fayda non à la violence doomi réew mi ñooy ramé seeni droit amna solo tuwaar la macha allah dama ni gars yi tey maa ngi mbooro damay talaxlaxi mbooro layam layami gars yi rakkam rakkam yi une force mobilisation gars yi dama ni tey xëri mi ngi mbooro taar fa kàlla macha allah li am na solo am na fula am na fayda. wa Mboro wa nyom senegal ñom ñoy réclamer sen ay droit nee ñom élection lañu bëgg lolu amna na fulla am fayda gaay di len wax ngeen abonné aimé partager sen vidéo sen sen YouTube xëri Pro l'officiel ndaysan parfois ma dem ci événement yu melni ndaysan xam ngeen ni xëri réew me ko ñor machallah man mom duma dem ci programme bojo bojo <laughs> ya ma gën xam duma dem ci programme bojo bojo vraiment tay wa Mboro ñoo wo xëri Pro ni ko nga couvrir programme bi ndax machallah am na solo. ah Aliou Sène jeexal nga nag <laughs> Aliou Sène tey noo jeexal ga non Baye Aly jeexal nga di leen fàttali rek Mboro mooy dëkk bi nga xamante ne mooy zone bi nga xam ni moo ëpp ay zone industrielle fii ci diwaanu Sénégal fii la ICS nekk ak yeneen ak yeneen ak yeneen fii Mboro ndeysaan sëñ bi tey looy wax ci marché bi. gis nga waa Mboro yëpp génn nañu. ñu kontaan de Macky Sall dictateur la lu mu bëgg du ko nangu la 25 élection lañ wax le député corrompu élection lañu wax incha allah le 25 février ñu fal Bassirou Diomaye Faye yóbbu ko palais génnee Macky Sall ak tous les dictateurs yi nekk ci réew mi les juges corrompus tout tous les sages nag bàyyiwuma kenn les sept sages nag la ñu woo ñu dellu seen xel nga xam ne calendrier élection kenn mënu koo kenn mësu koo foog Macky Sall dictateur la. Ndeysaan loolu am na fula am na solo macha allah gis ngeen kooku Ndeysaan mi ngi foto ki nga xam ni mooy Seydina Ousmane Sonko. Masyaallah allah ku tedd kaa ngi noonu mu sel mi ndaysan ki de moñu ñu talakh talaxlax yi ki moñu ñu jaral layam layam moñu jaral rakkam rakkam mais dama ni formé élection pour lan ci yane raison lay la ci yane raison ci yane raison Masyaallah wa Mboro sen mobilisation amna dole ñi ñoo am jom jog yomb len waye buñ joge rek Sénégal xam ni jog nañ masyaallah allah ngi fi tay diwanu Mboro amna solo masyaallah Vraiment. Ndeysaan tey kooku photo Seydina Ousmane Sonko la Ndaysan mu sell mi toar fa kàlla macha allah ñii ñoo bëgg Sénégal ñi ñoo bëgg réew mi macha allah di len fàttali rek tay xéri Pro mi ngi diwanu Mboro Ndaysan temps bi moo ma ko mayul kon dama koy démarrer direct live sur YouTube mais ndeysaan macha allah am na solo ah patriote bu mag bàyyi noonu Ndomur waa Ndomur tey noo gisee bi. ah. noo gisee bi doome rek. Ah. neex rek. macha allah rek. am na solo. Macky Sall dictateur. Macky Sall kaña la. Macky Sall dictateur. ndeysaan am na solo. doomeram ah, tey Mboro doy na lii moom musuma koo gis Mboro macha allah c'est la première fois ma gis lu mel nii fii ci diwaanu Mboro lii moo tax xam naa ñu ma xëri foog ñëw couvrir programme bi ndax ndeysaan waaw képp ku ko gis rek mën naa ne population ñoo fi tase te en particulier boo xoolee ñu fi nekk ñëpp mën naa ay jeunes lañ parce que boo xoolee lii nga xam ne am na lu leen metti moo tax ñëpp génn pour véhiculer message bi leen metti lii nag yaakaar naa message la boom te ni jeunesse koy circuler di ko jëmale njiitum réew mi te yaakaar naa bu mën naa ne dernière lañ koy jox wax deug ci yalla jeunesse bi sonu nañ mag ñi sonu rew réew mi ñëpp sonn nañ wasalaam te kep kuy jeune nak ñang lay wo nga genn parce que li sa droit la da nga wara manifester merci. ndaysan amna solo ndaw rew mi ñoy réclamer seen ay droit lu am solo ngi nonu avec xéri Pro l'officiel tay ma ngi fi diwanu Mboro ma sha allah gaay leen wax ngeen partager vidéo yi seen seen YouTube xéri Pro l'officiel ndaysan xéri Pro mom Ousmane Sonko rek moko jaral li Ousmane Sonko kese moko jaral li ndaysan waa Mboro jóg nañ def mobilisation ba am doole macha allah gars yi leen wax ngeen abonné seen seen YouTube Khary Pro l'officiel gars yi partagé vidéo yi lii am na solo tey ndeysaan dama bàyyi lépp ni tey damay de Mboro waa Mboro nee ma ñëw couvrir programme bi macha allah dinaa ko gérer ba fu mu yam neex gars yi ah damaa xamul nag vidéo bi kañ lay dugg vidéo bi gudd na nag talax-laxi waaye layam layam amul solo yàlla baax na ñaari da nga am ñaari baat yoy sanni ay ci am. non non Macky Sall na bàyyi suñu rew comme que bëggoon duñ ko rek na bàyyi suñu rew quoi Ousmane Sonko lañ soxla dina Sonko lañ soxla dañuy bàyyi mo ngir Yalla mo bàyyi Ousmane Sonko lolé lañ koy ñaan quoi lolé ga bu am na wax. ndaysan ma sha allah koku mi ngi réclamer Ousmane Sonko néna Macky Sall na bàyyi Ousmane Sonko. ah tay Mboro ma sha allah mag ñi genn na ndaw ñi genn nañ tuar fa masalah sha allah ndaysan xolal ma ñele ñanga ci kaw terrasse bi ndaysan neena ñu libéré sayidina Ousmane Sonko sha allah. di len fatali rek yéen ngi sen sen YouTube Khary Pro l'officiel gaay di len wax ngeen abonné aimer partager vidéo yi sha allah tay ma ngi Mboro di couvrir Mboro sha allah lolu amna solo. li ndaysan daw na yaram li mo leen xamal ni nguur day jeex lepp lo gis day jeex mbokk yi tay maa ni fi ci diwanu Mboro ndaysan di jeul li nga xamni modi di manifestation bo xamni ndaysan ndeysaan macha allah de wuute nak fenn fi ndaysan fi de ndaysan ñi ngi ni di manifester wu ci jamm ak salam no à la violence ndawi réew mi ñoo génn jàmmarloo ak suñu njitum réew ni ko doyal nañ ndeysaan macha allah ndaw ñi ngi réclamer seeni ay droit nee nan ñoom doyoon nañ ci li nga xam ne moo di dictature macha allah. demal ¡Vamos! ma jël de bu jël de bu jël rek. Ndeysaan xam ngeen ni li amna doole wa senegal gep buñ defon ni senegal day talax laxe lu ñu am dañ koy bëgg mbolo mi amna doole ma sha allah fi ci diwanu Mboro. Khary Pro l'officiel Pro K S E U R Y Naysan. Mang may laaj sen YouTube bi nan la tuddu. Len wax rek yeneen sen sen YouTube Ndaysan. Khary Pro l'officiel gaay. Amna solo tuwaar fa kala Ndaysan. <laughs> Ndaysan koku may sen moy Ndomur le vrai patriote Masha allah ndeysaan ci sama kanam ak sama ginnaaw Mboro tay dafa fess dell li doyna war waar fa kala ma sha allah ndaw yi réew mi ñi ngi réclamer seen ay droit bu len fàtte ni Pro mo nek ci antenne bi de. Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur no, Carlos. trahir le peuple Macky tu as trahi le peuple ndeysaan maa ngi fii diwaanu Mboro man gëw ma ni woon Mboro am na lii yow macha allah. ndeysaan tët man na gars yi damay talax lax di layam layami nag mais damaa ñëw Mboro fekk fi ñu ma dàq layam layami saan Mboro ñoo def une forte délégation saan man gëw ma ne woon lii am na ci diwaanu Mboro saan dëkk-dëkkaan yi nekk Mboro Mboro ak li ko wër ñoo def benn délégation di leen xamal ni maanaam mbooloo mooy doole dëkk bu nekk ci ginnaaw Mboro rek saan ñoo génn def benn forte délégation saan pour magal li nga xamanteni modi li di injustice ci rew mi lañ bëgg mu jóge fi ndé man na né ndaysan euh, délégation bi man musuma gëm ni Mboro amna lu melni musuma xalaat ni Mboro am lu mel mi doole leen fàttali ndeysaan maa ngi toujours Mboro ndeysaan ki nga xam ni moo di Kheury Pro ndeysaan tey dañ ko déplacer uniquement pour mu ñëw couvrir programme bi leen xamal ni seen seen YouTube Kheury Pro l'officiel ndeysaan seen la boo xam ni donte que je suis un artiste comédien mais je suis l' artiste comédien du peuple gars yi kon di leen wax ngeen abonné seen seen YouTube Kheury Pro l'officiel ndeysaan am na solo tey Mboro wax dëgg yàlla man yaakaaru moo ni nii lay mel ndekete lii am Mboro doy na waar macha